salaam tout le monde ñun équipe nationale kickboxing bu Sénégal ñu ngi leen di jox rendez-vous le 5 le 6 le 7 juillet fii ci place de souvenir festival Eric Favre sport santé international giri direct yu garaaw kenn daax ko ci xeex da ko doon dóor waaw dëgg la dëgg waaw di ko touché xam naa gëj a bi ak physique bi ma lax dañ leen ko da koy calculer nit bu amul physique kay hmm. mooy waral ñu def la noonu mais bu amee physique am lépp tey hmm. soo écart ñëw taxaw daw cent mètres deux ñëw taxaw daw soo ñëwaat giri yàgg nañu xool combat hmm. man Fass mosuma nekk benn équipe bu dul Fass xanaa ba Fass kii ñëw ci jàmm yow newoon naa la giri xeex bi waaye nag ban jàngat nga. non la ngir bëggul xeex bi waxuma la ko fi. waaw loolu si vendredi. ma ko gars yi seetaan naan danañ interview naa la ngir bëggul xeex bi. Uh-huh. xeex bi ngir ñëw pour tëj bëri bi pour nii la làmb ji wala mu yàgg loolu la bëggoon pour vider Ama Baldé. Hmm. te si biir làmb ji Ama Baldé jeexaloon na. làmb bi. waaw jeexaloon na. physiquement jeexal na jeexaloon na kay. Hmm. non non non grand si biir làmb ji jeexal na. non non waaye yow si ji jeexal na. ah yow tamit xanaa amooy bët. non non non non non man grand d'accord. non non gisoo gisoo loolu. ay d'accord ñoo ngi yow de. physique physiquement. waaye déggoo ma si biir làmb ji gisoo ni Ama Baldé doon nooyoo. waaw non loolu du si dara. làmb ji ma la génne temps de minute lay làmb ji ma la génne lépp. làmb ji ma la wax ma la wax lépp minute yi ñuy bëre ak ne làmb ji déroulé lépp dama la ko génne ma la ko wax. mais mais Ama Baldé moom benn instant nee na na giri ñëw ñu continuer làmb ji. waaw mais boobu na giri ñëw ñu continuer làmb ji mais bi ñu darte darte Ama Balde jeexal na. dem ñëwaat dem ñëwaat amul koofur. non mais Ama Balde combat bi gis ne Ama Balde. Ah. am na différence ak Ama Balde contre Modou Lo. waxoon Ama Balde bii. non a liggéey mais. Ama Balde mu ngi jëlaat Ama Balde bii ak bu ab Modou Lo du benn. amul fi mais gil sax ci lamb ji jeexul woon Ama Balde jox ndax day am première souffle ak deuxième souffle. ak te eggu ko woon ñoom kenn ñoom ñaar gil sax xëy na moo géeme def bët bi kii ndax nit ki mënoo xam métti tam moo koy xam mu jaar mu ni combat bi mais mënul eggale xam ne moo ko xam yow mais Ama Baldé am na premier souffle am na deuxième am na troisième souffle bar jeew loolu moom jeexul moom mais xam nga aussi xam muy waxee fi muy waxee mën ngeen bañ a comprendre xam nga tey mën nañ koo comprendre premier accrochage moom entraîné wul yow yow da nekk ci troisième combat ba egg ay grand combat ba rek la déggee 2004 kon man ñu ma xam géew loo fa gis ak yooyu noonu mhm. sax man continué woon deuxième souffle am day ñëw Mhm. ndax am na noo gën a son sa deuxième suuf doo ko yëg am de mi ngi noonu Ama Baldé mën na ko def noonu mais après deuxième souffram bu ñëwoon da xam ne kii gaynde la mais mu toog ba yàgg ba giri koy fañ noonu Ama cent mètres fa boo xam ne waaw mi ngi xam nga kon mi ngi ñëw nit tafaati na ngi noonu gaawul tàng ci làmb di ngay dóor mais bu xasee ba jóg moteur bi mënatoo koo téye mm. moteur avion la yor xam nga nit ko da nga ko wax <laughs> ñun ñun xam nañu làmb ñun dañu xam làmb mais gaawul di wax mais bu demee ba tàng neexut a téye ah. mais ngi noonu mais ci bëréb bi a ndax tëf tëf mais bu demee ba tàng mënoo tóor ko téye day ñaaw ñun xam nañ dañu dañu mbappat dañu bëri dañu def lépp waaw waaw ñoom ñaar ñëpp kenn jeexaluñ xoolal bi ñu dërti dërtee waaw xoolal xoolal biiru Ama Baldé areera làmb ji bi ñu indiwaatal làmb ji waaw indiwaatal làmb ji nga xool làmb ji dama ko xool segg ko xam ki appauvant xam ñaata minute lay diire xam làmb ji nañ lay jeexee làmb ji waa Fass su ma leen liggéeyaloon dañuy am ndam non làmb ji moom ñëpp a ngi ci naan Iba naan deux secondes ak trois secondes. non non man wax di wax. sàmm wax da am de dëgg ah, yàlla moom moo xam lu ñëw ak lu ñëwagul dee day bett kon ku ne nit ku tëdd nga sa mbokk dee wala sa papa dee te na mu dee da ngaa jékki-jékki ni yàlla yooyu yëpp dama koy joxaat borom bi moo ko moom coppam mais tey mën nga ni diw daan yomb na diw lool mën na koo supporté ci làmb xam ne tey Iba ka day def émission ñëpp dañ koy xam Lemine TV day def ñëpp dañ koy xam mais tey heure yoo xamante ne dafa am yoo xam ne borom bi moo koy moomal boppam hmm. borom stade bi tey mënoon na màbb tey ñaanuñu ko yàlla wala leen yàlla moo ko moom dafa am yoo xamante ne décision borom bi la ñun duñ kuñ jéem a du wala dara hmm. ndax tey mbëri yi dañu entré yor si man tey jël naa coup boo xamante ni ba may bëri Jaguar moo gën a métti ci at bi ñëpp tegoon nañ ci ambulance bi daay dugg dama yëngal bi ñëwaat barke <laughs> sëñ daal non dëgg barke alxuraan xool yooyu yëpp ñëpp tegoon nañ duma bëre ba ñëpp di xaaj bi yëpp di ñibbi mm-hmm. am de te ku boobu ba ma jëlee gisuma loolu ay étoile mais ni ko gis ay étoile mm-hmm. ba ma toppee ndox mi <laughs> am de ma ma xëri ko nuyu na ko yàlla xare ko àjjana ah ci la ma sottee ndox kii si laa miraat ko mais xam nga mi ngi noonu suuf day am premier suuf ak deuxième suuf mm-hmm. kooku nit ki moo ko moomal boppam dafa am partie boo xam ne hygiène de vie la nit ki moo ko moom intime ki moo ko moomal boppam mën nga ah. ne xam nga man. Ama Baldé man ci man man si li ma gis a du mystique. xam nga tey nit ñi mais Boucar la. non ji dafa naan làmb ji. waaw làmb ji cinquante cinquante waa Fass dañ def li ñu am lépp. Ama Baldé bi mu jiitoo dama ne laa ji Ama Baldé moo téye làmb ji bi mu ëlbatikoo bi mu duggee cinquante cinquante dama ne làmb ji dugg na cinquante cinquante waa Fass ñoo ma la gën a xam mille fois parce que liggéeyal naa leen dama leen di liggéeyal mais lamb aussi dafa mel ni aussi souvent ay sara. ba nga laaj ma la ne waaw Fass dama leen di liggéey équilibré lan. des fois sara day équilibré lan des mu nekk cinquante cinquante kii def ay sarax gën a avantage wala sarax dafa mel ni am na ci lamb lamb waaw sëriñu mbër sëriñ mbër moo gis am na ku koy xoolal fu làmbam toll ay seetkat da ngay liggéey ba téye làmb ji mm-hmm. gars yi enchaîné commencé sarax yi commencé sarax yi commencé sarax yi commencé changé muy muy tolloo di tolloo ba ma ah. ah. ah. yàlla na ma yàlla may ndam yàlla bu ne bu kon bu ko joxee ki kon xam nga làmb ne saison bi yàlla def na ñëpp ñu war a daal batika yàlla am na ñu may ngay naan noonu soo neexee taal batika Badika yalla am na ñu mu may kon buy tourné dafa ndox moom mën nga ko daal déggoo li ma ndox mi ko daal Ibra yàlla na ñu mu may eh Badika soo ko taalee ma jox la cinq cent déggoo li ma la déggoo déggoo li ma la Badika na ñu mu may may ci la ndox ko daal mi ngay na ko taal mooy lan ah, ndox man mi mi waaw mi ma naan mënuma koo taal man mën ko taal waaw taal ko ma xool non non bu ko fi taal ci plateau a non non taal ko wax may kan waay. déedéet taal ko non non kii wax may moo la gën a lam. barke Serigne Bamba ñàkk ngeen moo la gën a lam. barke alxuraan. Malika amoo man ngay wax de man maay borom yil bi. déggoo li a la. dama waa Fass contre kan ci la. déedéet déedéet man déedéet man waxuma. Ragros waaw waaw fils de Balla air laa ko sol Moussa ñoom ñoom Moussa Faye de moom a yónnee xaalis. Ragros sama rakk la. boobaali Moussa Faye Gueye gi nii. dama ne Ragros yow da ngay nopp waaye yow xam nga ma yow. déggoo yow yaay nopp yow xam nga yow yaay nopp. yow yaay nopp toogal xaw ma yow yaay nopp yow doo gaari mëtë su ma neexee doo àgg sa moom. mëtë leen di wala la. déggoo déggoo non non kii mëtë leen di yàlla moo ko yow xam nga ma yow. bari nga may laajte. man yow doo ma laajte. yow xam naa la waaw waaw waaw man palay palay waaw waaw man ngay wax wax dégg man palay man kenn maa ko rawani hey man déggu ko da nga ñu man kenn mu sama palay man xam man may kan kenn mu sama do man xoma daan mi daan lay wax da xam ne man la muy mu turé fi dafa bari déggu waxuma la la yàlla ko yàlla lambaaw la xam nga problème bi lan ku daan mu jox ko loolu laa la wax xam nga problème bi lan waaw mi ngi noonu léegi dañ ne les goûts et les couleurs ne se discutent pas waaw làmb kenn mënu wax làmb te o waxoo mystique kenn mënu wax làmb te waxoo sport am na ñu gëm làmb mais gëmuñu aspect mystique bi mhm. am na ay mbër yoo xamante ne ay mbër lañ nekk mbër di bëre mais gëmuñu sax sport bi ñoom mystique lañ gën gëm que làmb que sport xam nga loolu si dara voilà moo tax nag ku nekk aussi dañ koy nangul côté bi mu nekkee waaw mais barke alxuraanu kër barke alxuraanu kër mm-hmm. man Casamance man Casamance ñoo jël déggoo barke Rosolay fii la dara néew Dakar la dara nekkul Dakar la tus nekkul barke Serigne Touba Mbacke jàmm na ma laaj ja ay ponk ñoo fa nekk barke alxuraanu karim barke Rasulullah waaw ah. ponkal yëpp tey da ngay gis ñu ñu la eh, eh, dëgg eh, yàlla ñuy sant Kéba Dara yal na ko yàlla yoon di ko ci ay ponkal di ko tal carrément fële mbir yi léegi léegi sama question waaw waaw léegi waaw léegi ah, xam nga lu may laaj na ko un million def ko addiyee Cheikhul Khadim toog ko ci ay bool yóbbu ko ci ñaar rakk yi ñëpp taxaw ñëw tàppeel ci internet man musuma toog musuma naan piñ man piñ bi lay cent mille waaw lamb ndoxtu la ak tegtal waaw mi ngi noonu boo nee lamb oon man dama amul lamb ndoxtu la ñe jawnde iba ñun ñoo amuloon dañu eh, eh, ma wuy ma ñun xam nga Fass lan moo ñu rayoon ëllëg dañu amuloon conseil eh, comme nu père ba ñëwee récupéré paasoo jàppale ko ñun ay amuloon conseil lu ñu neex la ñuy def am lu ñu neex la ñuy def Fass liggéey wuy ma combat bi da ngay am sa làmb ñun ko yéene waaw Fass moo tax ñu yéene da ngay am combat waaw da ngay non non yow noppi yow yaay noppi yow nag yow yaay noppi déggoo yow yaay noppi waaw yow yaay noppi waaw avenir u Gris Bordeaux si làmb ak avenir u Ama Baldé lan nga gisee euh, tey Gris Bordeaux tey ci état bu wàññee ab yaram bi ci wopp am physique nekkaat xale mën na mën na amaat dara ci làmb Gris Bordeaux li ko def si làmb benn benn victoire la si am ma la Gris Bordeaux waaw am ah. ma na man maa la wax léegi ah, dina amaat victoire. non dina amaat victoire ci carrière am benn lay amaat. kon non loolu du si waxagul mais benn victoire lay amaat loolu xam naa ko ba nga laaj ma leneen waaye léegi avenir u Gris Bordeaux Gris Bordeaux day des ci làmb wala lan nga gisee avenir u Gris Bordeaux ëllëgu Gris bu ma tey làmb xale la ah, mi ngi bëre ah. mu ngi bëre tey Gris mi ngi bëre waaw ça dépend ci ay xale nag waaw non du maanaam du xale mi ngi bëre moom saa si xaw moo ko mag mi ngi bëre ci làmb mhm. tey bu ko defee bu defee en respect am bëri yoo xam ne nangu mu bëre ñoom am yàlla moo yor ndam mën na koo yàlla mën na koo mbay ndam mu daal loolu làmb la na indi physique ay waay fii xel sa xol ah, original